ci affaire mandat bi euh, sànq maa ngi xoolaat ay euh, vidéo 2016 euh, d'ailleurs maa ngi gis benn altercation ak ki nga xam ne moom mooy ba Jatara euh, buy wane rek ne politique dafa dafa tëradi à l'époque yaa ngi woon ci camp présidentiel bi ba Jatara nekk réew mi nga naan kaan euh, da nga da ngeen di ñëw di indi violence parce que boobu réew mi était sûr de sa de sa suprématie mooy ci référendum bi vous aviez battu ardemment euh, campagne euh, pour le pour le pour le référendum le non ah le non remporté ko le non moo ko moo ko le oui astafurlah euh, moom moo ko moom moo ko remporté alors 2016 alors qu'on pensait avoir réglé la question euh, de l'intangibilité du mandat et de sa de sa durée le le, le débat revient à l'époque euh, parce que am na ay professeurs am na ay hommes politiques euh, Barthélémy Diaz Ousmane Sonko euh, Cheikh Tidiane Dièye euh, professeur Babacar Babacar Gueye yu doon soulever ay ambiguïté les topp toppuñ ci à l'époque yow amoo woon inquiétude yi nga xam ne am nga ko tey en 2016 amoon benn inquiétude ndax ba ñu toogee conseil des ministres mais loolu dinaa ci ñëwaat bu ko laajee dama ne bu fekkente ni président Macky Sall wax na ni mun na présenté wu dinaa def conférence de presse wax bis boobu lu mu wax moom ak lan moo indi woon wax jooju. dañu mais mënoo ñu ci may tuuti mais dema ni ba ñu toogee premier ministre conseil des ministres sax di proposer di kii loi référendaire boobu di ko yóbbu à l' assemblée nationale. je crois une heure une parce que jour boobu bu ma fàttali ko président dafa waroon tukki mais loolu du le plus important mun naa ma fàtte côté boobu mais li ma mun munul fàtte te mun naa wax ku ci nekk lan la waxoon dafa leeroon moom ni. même ñun ñu fa toog daf ñu leeraloon ni que munul am beneen troisième mandat. en conseil des ministres. ngeen adopté texte bi en conseil. des ministres amul non te loolu dama ne détails yi nag. détails yi nag. bu laajee bu ñu bu laajee ñu toog conférence de presse parce que du ma ko fi waxee du wax fee maintenant woo presse yëpp ne kii ma wax nii keneen ki wax lii lii ma wax nii parce que conseil ministre du caaxaan bi tamit def ko ñu foofu di complot contre l' état wala wax ay secret yoo xam ne au dessus de la de l' état état bi lañ fay waxal loo tax ñu def communiqué conseil des ministres di fësal ni conseil des ministres tey adapté nañu loi bi lii la ñuy donc lépp lu waaye wax dafay wax Sénégal ci guuta 2012 ñun ñoo ne woon côté bële ñenn ñi nekk côté pouvoir bi di am argument bi Macky mënul président Macky Sall mënul nekk ba mu ba ñu koy voté amul droit que deux mandats loi bu bees ñëw nee amoo droit que deuxième mandat gën ko dëggal mu bëgg fi lu xus benn troisième mandat mënul nekk. dañu waxante dëgg. d'ailleurs ñun man xam nga foofu nag laa am problème ak ñu bëri bu ngeen tàppee internet gis j'étais le président des cadres de l'APR. ba mu nee sax day def sept sept dañu def communiqué ñun CCR ne la le respect de la parole donnée est sacré mm. munoo ne da def sept ans ba euh, cinq ans ba mu yàgg ñu ne dangay def cinq cinq ans ci biir laa ne woon ñun parce que man Macky Sall moomu ma nga ma neex Mansour ma ñàkk neex man Mansour sama yoon newu ci li may xalaat mooy ëllëg bu ma demee ci bàmmeel bi ndax naa yóbbaale ay booy yi manifester ñu dóor leen ay bal ci bopp seen bopp explosé ñii seen yaay ñàkk leen parce que man j'ai été lâche wala je me maa ngi xool procès wu Guinée bi mais ce qui se passe est lamentable parce que c'est la faille et ci buñ buñ jàppee ni mun nañ toog di diir rek di nax gars yi chaque année non non bi yoon euh, man maa bind la ñuy wax àdd gëm la woon 2001 man maa bind kii bi j'ai pas droit à maa leen gën a xam lu nekk ci constitution bi j'ai pas droit man la troisième mandat ñëw 2012 11 ne leen maa waxoon waxee abomination Macky Sall xeex loolu ñëw ñu bëgg ñu ne xaar leen conseil constitutionnel mais noonu la jël xam nañ conseil constitutionnel lan la nar a wax parce que man maa ngi génn ci mbir mi là je parle de manière un peu décousue parce que je suis encore. vous êtes fâché. oui parce que je suis dégoûté mais fâché xam nga lu tax je suis dégoûté. le sourire vous va tellement bien. sànq au début bi ngay reetaan. non mais je suis dégoûté j'ai vu un autre terme. xam nga xam nga may mun a pourquoi pourquoi may mun a non sainte colère dafa am. yàlla il est fâché parfois dans dans dans le Coran le prophète il est il a pu être fâché il faut être fâché pour de saintes raisons mhm. pas pour moi parce pas que pour ce qu'on m'a fait mais parce que ce qu'on veut faire à un peuple à un pays mhm. parce que mais le Conseil constitutionnel ba ñu quand Ismaël Madior vient à l'Assemblée nationale dire que il une décision du conseil constitutionnel en 2016 qui avait dit que euh, kii transitoire yi mënuñu ko ci dugal mais il y a plus grande honte dafa mel ni conseil constitutionnel mooy bind constitution conseil constitutionnel mun na leen ne ni ngeen ko bindee baaxul wala fi ngeen ko dugal baaxul article bi ngeen ko dugal baaxul waaye mun leen ne lii mënu leen ko fi dugal ñett la leen mun a traiter ngeen dugal ko fi bu ngeen laalee forme républicaine de l'État la laïcité ak xaw ma yem yooyu la ñu la le conseil constitutionnel war a ne si c'est anticonstitutionnel mais si on modifier la constitution pour clarifier un pays point boo xam ne ça a failli faire culbuter le Sénégal dans l'insécurité en deux mille euh, douze quatorze enfin ñaata ñoo ci deewoon douze vies humaines dem ci le conseil constitutionnel nous dit qu'on ne peut pas clarifier ñoom waxuñu ko sénégalais yi waxuñu ko sax ñun ñu nekkoon ci biir après ñëw tey bëgg ñu wax la c'est une